jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi mbokk yi ñu dellu am mbégte tey ci samedi ji comme ni nga xam ne moom lañu ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag euh, tey ñu daal di invité Serigne Fallou Dieng. mi nga xam ne moom moo jiite cercle des intellectuels soufi euh, fas yéene seq ak moom waxtaan ci li nga xam ne mooy euh, actualité ak yeneen ponk yoo xam ne aju na si euh, Serigne Fallou Dieng ñoo ngi am mbégte ci wuy si bi nga xam ne wuy si nga ko invitation bi te di la nuyu. Cheikh Abdoul Khadir maa ngi lay fay di la ziare. di ziare waale auditeur ak auditrice yi Rewmi FM di leen wax ne rek bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah barke borom Touba maa ngi leen di nuyu di leen ziare. jërëjëf euh, Serigne Fallou Dieng yow yaay njiitul euh, cercle des intellectuels soufi suñu première laaj moom mooy euh, coronavirus bi Covid 19 bi mm-hmm. bala ñuy ñëw ci troisième vague bi de manière générale. yow lan moo ci sa xalaat ndax am na ñu bari ñoo ngi wax nouvel ordre mondial am na ñu baree baree bari ñoo ngi njortu ne dafa am lu nekk ci ginnaaw coronavirus bi yow en tant que gëstukat lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga coronavirus euh, euh, dafa moom dafa ñëw rek doon lu bizarre ni mu ko doone mooy ba tey ji ci in ñi gëstu information OMS ak Chine am nañ problème ci origine virus bi maanaam laboratoire waxaan boobu mu euh, jóge lan moo fa jóge lan moo tax mu jóge fa création humaine la wala accident la loolu ba tey Chine lànk na barki mu ne moom enquête am jeex na du du ko jox OMS donc waaye coronavirus bi musiba mi ko daal nag bul fàtte ne avant coronavirus variole amoon na fi peste amoon na rage amoon na lu ci ne amoon na mais vaccin moo ko réglé woon. dégg nga waaye nag bi mu ñëwee bul fàtte ne Bill Gates borom fondation bi am na lu mu waxoon yooyu mu waxoon ne fii juróomi at nan war nañu indi benn virus boo xam ne nangam nangam ay nouvelle ordre mondial loolu moo tax bi corona ñëwee mu nekk terreau benn terreau fertile ci euh, des thèses complotistes. thèse complotiste yooyu nag ñoo ko jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp ba mu sooxee te it moom coronavirus it bi mu jógee dafa bari ay euh, dafa livre ses parts de limière et ses parts de l'ombre maanaam euh, dafa bari ay récits yoo xam ne récits yu biir burlesque la ba pare ñi nga xam ne ñoo koy gérer di ay kilifa bari ci seen wax bari volte-face bari fen bari maa ngi jéggulu bari bari ay mensonge bari volte-face bari loo xam ne it ay argument yu ñu waroon a jox yuñ boo xam ne suñ ko joxee tey mu mel nii bu subaa ñu weddi ko loolu loolu moo tax. ay incohérence ay incohérence bien ci seen ci seen comportement loolu dafa feeñ ci euh, coronavirus ci fépp nag. ci États-Unis gis nga Donald Trump ni mu lànke woon problème bi am ak docteur Fauci nga gé nga ñëw France euh, ku toll ne suñ docteur bu siiw bi euh, Raoult problème bi mu am ak ñoom euh, kii Big Pharma am ko ak yeneen gars yi euh, yooyu nga xam ne même docteurs yeeg médecine biologiste yi euh, Karine Lacombe ñoom dañu am problème ci même ci ni ñu koy doxee effet placebo nangam nangam lépp ñu am ci pro kii kii. ay divergence ay divergence yi ñu am ci divergence lépp loolu mooy coronavirus am problème Sénégal it ñu ñu ko gestion catastrophique ndax bi mu fi ñëwee. di fléau maanaam di calamité di pandémie xeet wi waroon koo concerté man bindoon naa ci ci seen colonne journal bi au commandant de la gendarmerie ba fi nekkoon di Jean Baptiste Tine ñu convoqué Gana Messere ak Ablaye Mbaye Peex ne leen lu tax ngeen di wax naan coronavirus amul ma ne leen déedéet république boo xam ne su la neexee ne gëmoo yàlla su la neexee ne gëwuma corona ñooñu ngeen invité nag di leen def ay audition ci section de recherche su ngeen leen woo woowoon yóbbu leen ci hôpitaux yi ñu observer de visu xool malade yi ni ñuy def seen dënn yi ni ñuy rëcceeg yooyu suñ demee suñu waaree gars yi ne eh gars dëgg la de buñ demee gars yi gëm ko mais dañ leen doon jéem a contrainte boobu ngeen leen doon mën def loolu mooy loolu erreur la woon président de la république it defoon ci erreur nit ñi def kii erreur. loolu mooy coronavirus. d'accord mais euh, Serigne Fallou Dieng bala ñuy ñëw ci Sénégal ak euh, gestion Covid bi mais li nga wax sànq ci àdduna bi ak incohérence bi si am ak ñàkk déggu bi si am te borom mi xam-xam lay lay lay lay faral di doon mais boo xoolee tamit euh, vaccin yi tamit coow loolu la la am même boo Johnson bii tamit maa ngi dégg ñu ne am na ñoo xam ne porté nañ plainte Amérique kana ñoom ñu vaccin bi boo demoon tey France tamit. Euh, bëri na ay manifestation yoo xamante ni nit ñi ñoo nga fay manifester ngir pass sanitaire bi ndax dañu ne na ñëpp ñàkku ñi dem ci bërëbu liggéeyukaay yi France chaque samedi ñi ñëkku dañuy wàcc ci mbedd mi maanaam ñàkk gëm vaccin boobu ak ñàkk gëm coronavirus bi ci ay grande puissance loolu lan nga jàpp ne moo ko waral waaw loolu xam nga ci Macron dafa def benn ci euh, stratégie parce que loi disposition euh, légale yi disposition juridique bu France et constitutionnelle dafa interdire Euh, vaccin obligatoire maanaam vacciner nit ki euh, xam nga nit it moo disposé. Euh, kooram yaramam moo ko moom. kon kenn mënu koo vacciner sans sans son consentement. Mm-hmm. léegi nag Macron indi leen benn stratégie te stratégie bi marché na léegi def extension du pass pass. sanitaire pass sanitaire bi. pass sanitaire bi mooy lan lieu d' exercice de leur vie quotidienne théâtre piscine. fépp foo xamee ne nit dafay dem rek pour que mu kuy ko mu conditionné ko ak nga am passe sanitaire malgré nag France gépp yëngu na ña ngay manifester mais maa lay jox information ne presque vingt million français ñàkku na ñàkku nañ bu baax léegi nag démb aussi France it euh, dafa am nag benn étude bu génn démb étude bi génn démb it ba moo li foo si waxaat bu Amérique it am na contradiction waaye soo ko analyser soriwut ndax étude bi génn démb dane lien entre vaccination et hospitalisation seen vaccin bi mën ngaa am vaccin bi ba pare attrapé waat corona contracté waat virus bi waaye nag daa am lu mu génne nee lien entre vaccination et hospitalisation se confirme maanaam nee nañ maanaam boo boo vacciné woo quatre-vingt-cinq pour cent des malades hospitalisés dégg en France vacci non vacciné vacciné wuñ quatre-vingt-cinq pour cent des malades hospitalisés non vaccinés lañ 78 pour cent des décès au virus. vacciné non vacciné wu kon léegi vaccination bi cas grave lay dindi moo tax ñu ne dans les pays vaccinés on meurt beaucoup moins du Covid malgré la flambée des des contaminations et de la transmission. li contamination bi bari transmission bi bari yëpp loolu analyse bi boobu génn. mais mais étude bi étude bi bi ngi nii démb la génn France danaa la ko wan direction de la recherche des études et de l' et de l' des stratégies non euh, direction de la recherche des études de l' des statistiques moo ko génne. moo wax ne euh, te direction boobu rattaché au ministère de la santé moo publié démb 30 vendredi 30 juillet wane ne les personnes non vaccinées. contre le Covid-19 représente environ 85% des malades hospitalisés en France et 78% des décès au virus du corona. Ce document est extrêmement précieux dont le message est clair. L'efficacité de, de la vaccination complète est incontestable en France. mais euh, comme euh, Serigne Fallou Dieng li nga sa biir wax. wax nga ne man nga ñàkk ba pare. mu ñëwaat ah, mu ñëwaat mais boobu c'est moins dangereux. waaw waaw cas grave lay dindi léegi nag. cas grave cas grave maanaam doo doo doo doo demit réanimation doo nekkit joint critique soin critique mais démb Fossi daa wax Fossi bu bu bu dafa wax lu leer nee na dafa waxaatit lu garaaw nee la charge bi mooy docteur bi gën a mag Amérique ci wàllu corona fi mu ci mondial bi moo ci moo ci moo ci numéro un docteur Fauci nee na la charge bi souvent sax sunu waa ji ci la moom lay raawul ci lay référé wu fu Fauci démb la ko wax it dinaa la woon preuve yi nee na la charge virale du variant delta dans le ne des vaccinés est la même que celle des non vaccinés charge virale bi maanaam ñi ñi vacciné wu ba pare. Mhm. charge virale bi ne ci seen bàkkan ak ñi vacciné wu ñooy am rek da caa teg ne masquez-vous ki vacciné ba pare moo ki vacciné wu charge virale bi bi muy garde bu bu bu bu amee kon ñoo yam day wàlle ba pare day kii léegi nag da ngay masqué wu. lan mooy différence bi différence bi moom moom dootu doon cas grave pour moom. Mhm. exposé tout ci dégg. léegi léegi yow euh, bala léegi kon su ma la déggee mooy. Mhm. yow euh, boo sukkandikoo ci euh, rapport bi génn France. Mhm. ak borom xam-xam boobu ngay wax foofu si Amérique. mooy ngeen ñàkku ba pare jël mesure barrière yi maanaam jël mesure barrière yi maskaw mooy tax doo am jàngoro ji. ñàkku bi mooy tax doo dem réanimation. doo dem réanimation loo nekk. est-ce que gëm nga leen. ah loolu da leen génneegun. mais est-ce ah, leen. étude eh, eh, seen i xam nga nag corona moom ba mu ñëwee ba tey dafa bari volte face ak kii mais daal loolu lañ génneegun te crédible na Amérique crédible na France euh, ci ci seen institution moo génne. xam nga corona li gënoon a indi nag fantasme yi gën a bari mooy la amoon euh, Madagascar équivoyant yooyu maanaam jël ay équivoyant ñëw ne 66 pour cent contaminé na président ba contredire la ñu demaat seetaat ko mu pour cent. xam nga loolu kon daa meloon ne dañu amoon volonté bëggoon nit ñi contaminer nit ñi léegi nag les noo di yooyu ci am volte-face yooyu yooyu nag ñooy nekk terreau fertile euh, fertile ñooy ay terreau fertile yoo xam ne ñooy jur ñooy sardin yi nga xam ne ñooy jur nit ñi ñuy seeni xel ay tàppalee ngi ci biir ak euh, ay ragal yu ñuy ragal daal yu ne ci biir loolu moo ne ci biir nit ñi aussi Euh, dañoo wóolootut seeni kii waaye nag li nga xam ne am na nag wax dëgg yàlla mooy corona moom am na mais nag nit ñi médecin yi nag entre entre euh, problème bi am ci entre firme pharmaceutique yu mag yi ak docteurs yi comme ku mel ne Karine Lacombe boo ko gisee werante yi mu doon werante ak docteur ñuy génnee xam-xam essai ñu génne essai ne hydro euh, maanaam bi thérapie hydro hydroxychloroquine ak azit azithromycine bi boo boolee bi thérapie boobu dana jur ñeene essai def nañ essai randomisé baaxul ñeene baax na ñuy kiiwaat ñuy weddi xam nga tappale yooyu loolu yëpp boo ko boolee moo da moo daal soo xel corona waaye nag léegi àdduna si dañu gis nañ rawaasi corona gis nañ nit ñaa ngi dee ñu su si ñu gis kilifa ku baax koo xam ne suñu sañoon mu ne fi loola dal ko hôpitaux yi gis nañ ku ñëw si fokkee di xam ne nag kon corona jéeye la nag war nañ cee taxaw noonu. d'accord mais Serigne Fallou euh, Dieng liñ siy tudd Bill Gates yow amul lenn lu ma def si sa xalaat. waaw noo Bill Gates xam nga Bill Gates moom kenn mënu ko ci ñax moo waxoon feeg juróomi at dana am feebar bu mel nii. def décrire ne dana mel ni ña koy génne ci euh, réew mu bari nit loolu moom moo ko waxoon feebar boobu dana wàññi nit ñi def nit nouvel ordre nangam nangam loolu nag ba mu ko waxee ñu teg ñetti at ay convergence xalaat yam waxoon mel na daa defoon benn scénario scénario boobu concrétisé dañuy ah loolu nag moo teeyoon xel nit ñi waaw waaye nit ñi dañuy gëm ne corona mën naa am ba pare ñu liggéey ko. d'accord mais mais est que tamit euh, du responsabilité borom xam-xam yi aussi ak réew yam doole yi maanaam ñu. gën a yokk seen gëstu que ne réellement loolu euh, Bill Gates waxoon euh, fan la ko tegoon est-ce que jërutoon tamit yóbbu ci yóbbu yóbbu ko si yoon. waaw mais Donald Trump loolu la doon wax. Donald Trump loolu la doon wax ak rakku rakku frère John Kennedy bi. yooyu lañ doon wax discours yooyu loolu lañ doon wax ay naan mooy discours complotiste yi yooyu mooy discours mooy ba tax it gëmuñu enjeu climatique beeg yooyu gëmuñu ko. loolu moo taxoon bi mu ñëwee mu annulé yëpp annulé euh, nu ñu koy waxeeti kii yi TAFTA annulé euh, kii yi euh, trans ay accord transatlantique yeeg yooyu génn accord de Paris climat yooyu yëpp mu wax mu ne gëmu ko ba tey jii mi ngi ko était une large France de la une large France de la population américaine lu war a mat 60 millions américains ñi continuer ci gannaawam gëm loolu. waaw mais mais mais euh, leneen li si jaaxal. nit ñi aussi thèse complotiste yi ñu ngi fa français yi gis nga euh, kii yéeg yooyu ñuy wax naan ba bu leen ñàkk bu leen nii bu leen laa ñàkk bi day jur lii ARN ARN nee nañ day dindi day modifier duñ koy waxee ci kii day modifier dañ mm, euh, koy immuno système immunité immunité immunitaire beeg nangam nangam immunitaire beeg yooyu. waaw euh, thèse complotiste yooyu mi ngi fi mais li wérte wóor nga xam ne daal cas euh, li ñu observé nañ ko mooy que ne euh, coronavirus ab réalité la variant yi réalité la xam nga mutation variant yi sax dalay jaaxal parce que bi nee la demee woon nga ñëw ñu ne variant lii variant la te yem na yeneen variant yu ñëwagul variant indien bi rek moo ñëw variant indien bi moo tax fuusi bi mu wax le léegi nag man avantage bi ma ciy wax dama ciy bëgg a tudd fanu hmm. solution dafa am xam nga suñuy màggal ak suñuy dara moom dara mënuñu tee dara mënta ñu def ko xam nga loolu moom am na mais nag léegi daa mel na sax baati da ci am ndax kañ gën a yaakaar ci ñoom tubaab yi nee na xam nga bul fàtte ne variant delta la ñuy jàmbat nee na la charge di du variant delta dans le dans le nez des vaccinés est la même que celle des kon kay léegi daal di cay teg ne s'il vous plaît masquez-vous kon léegi li gën di solution mooy nit ñi ado s'astreindre aux restrictions barrières c'est-à-dire euh, adopter les mesures barrières masqué wu léegi kon nun nan masqué wu ba pare vacciné wu ci biir vaccination boobu nag fu mel ni Touba benn un benn commis de l'État muy gouverneur wala préfet wala lu mu mën di doon buy retirer vaccin vaccination yi ne ko na ko retirer ci wax bu rafet benn discours adapté c'est-à-dire tuubaakat ba ñu fi toogee ba tey jëlaguñ ko ñi ngi dem dañuy bañ euh, vaccin yi vaccin yi ñu fa ñëw kii ko euh, mu mu mu kii mu yàqu nañ dem yóbbu leen indi yeneen façon waxin boobu waaye boo nee da koy jël léegi da nga leen a abandonné ci leur sort. te dëkk bi nit ñaa ngi ñëw da nga leen a war a encouragé créer benn euh, insi indi situation boo xam ne day. d' accord léegi euh, Serigne Fallou il faut ñu ñu ñëw ci loolu mais dafa foo xam ne il faut ñu commencer fu waxtaan bi ndax euh, ñiy déglu il faut ñu comprendre ne dafa am ay vaccin yu ñu yóbbuwoon Touba. ñu ëpp ci askan bi jëluñu vaccin yi. ñu demaat jëlaat vaccin yooyu noonu am yu ñu si jël. indiwaat ko. Dakar léegi dana ñëw ci loolu mais ci coronavirus bi. Mhm. Euh, ndax il faut ñu yegg ci tuubaa ndax Touba dafa nekkoon épicentre comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm, mm-hmm. bokk ci localité bi nga xamante ni. Mm-hmm. Euh, jàpp nañ ne ñi gën a ñàkk gëm coronavirus bi. ak ñi ñàkk ba ñu jël mesure bari rek ñàkk gëm vaccin bi ci la ñu bokk. dina te màggal gi ma ngi dëgmal euh, dinañu ñëw ci dinañu ñëw ci loolu mais Sénégal. Sénégal ba léegi nii am na ñoo xam ne dañuy wax ne coronavirus. dafa am ñu si làqatu ci ginnaaw bëgg xeexaale diine yow ngay nitu diine ndax gëm nga loolu. maanaam mm, même bu amoon ñu ci làqu ngir bëgg a xeex diine it mënuñoo xeex diine waaye nag xam nga nit na muy jëfee day am jëf ju ne daa am lu muy wund ndax xam nga mënoo it saa lu wax rek nga tëj jumaa bàyyi estaat bàyyi leneen bàyyi leneen bàyyi leneen xam nga daa am waxkatu tubaab ba la mu wax nee na li gën a dangereux mooy benn idée am benn idée nee na une idée devient dangereuse boo ci amul lu dul benn maanaam confinement rek du solution moo tax ba njiitu réew mi waxee muy sunu kilifa Macky Sall njiitu réew mi bi ñu waxee nii rek mu daal di tëb tëb tudd fermeture rek confinement ma ne ko il faut qu'il mu départir ci ay eh, ritournelle de de la euh, ritournelle de de la fermeture et di confinement yooyu vision dégradante la et caricaturale de l'anti-Covid da ngay xalaat leneen lu du tëj ak tijji ndax yëf yi. dynamique prophylactique lay war a doon da ngaa war a fexe ba dugal ci nit ñi nit ñi gëm ko di def te boo indee ay tëjëg tijji rek day mel ne yow xamoo lu du tëjëg tijji te tëjëg tijji du jur dara nit ñi ndeysaan ca ci njum li tax ñu dugg ci mooy xam nga bul fàtte ne dañoo amoon premier confinement weeru koor la woon weeru koor nit nan lay woore nan lay woore dogu 19 heures et nga tëj ko 20 xanaa dina reer xan ca lañ eene woon corona bañ ko ci xol yi booba bu fekkoon président tey 23 heures la defoon euh, conf kii ba couvre feu wala min bi jamono booba ba tey jii min couvre feu ba mën nay dox te nit ñi duñ bronché wu duñ ñaxtu maanaam erreur yooyu moo ci ne waaye nag nañ xam ne ci l'islam it aussi l'islam sóoraale na euh, maanaam it musiba mu mel nii bu amee nit ñi war nañ leen a protéger parce que bakkan dafa am maanaa waaw léegi bakkan dafa am maanaa léegi nag ni ñuy def mooy ñi ngi jëm ci lu ñuy jëm léegi nit ñi gëmuñu ko te euh, bunt bu ne waatul wéetal ni ab wàbbihaa nit da ngay jaar ca buntam ndax tey États-Unis boo fa demoon dangay xam ne ay américain ngay waxal boo demee ca blanche ba ña nga xam ne ay cowboy lañ logique gu cowboy la ñuy wax ak ñoom ima Emmanuel Macron bërki démb bu yàgg bu naa toog ba ci yàgg mu ne y a un lien abîmé entre le clergé et la république léegi ay thèse laïciste yooyu safatu ko daa dem wax ak kii wax ak euh, prêtre yeeg yooyu toog ak ñoom wax la ma ne dama bëgg réparer le lien abîmé entre le clergé ak la république waaw wax ak ñoom ñoom it ñu seet ñu seet ñu seet ña ngay discuter lool loolu dafa am solo. d'accord mais mais xam nga sëñ Fallou euh, am na tamit loo xam ne ci Sénégal. Mhm. Euh, sénégalais yu baree baree bari mhm. ci coronavirus bi. Mhm. Euh, ñàkk géegam gëm. ñenn ñi tamit dañoo jàpp ne dañ see dugal politique ba mu ëpp ndax ñenn ñi jàpp nañ ne. mbas mu mel nii bu doon Sénégal jël na ñi nga xam ne ay professeur Seydi ak ñeneen ñu mel ni ñoom. xam na ñooñu Sénégal yi xamuñ leen. ci ay poste Sénégal yi xamuñ leen ci ay ndëngte. Mhm. mais su dee tey par exemple tey dafa am li ñuy wax crise de confiance. boo xam ne dafa doxoon diggante ñenn ci Sénégal yi ak ñuy jiite. Mm, mm, mm. xam nga am na ñoo xamante ni tey Abdoulaye Diouf Sarr lu mu mën di wax. Mm-hmm. mën nañu koo bañ a gëm. Mm-hmm. ndax mën naa bañ a nekk lu crédible. Mm-hmm, Macky Sall tamit lu mu wax mën nañu bare mën nañu koo bañ a gëm ndax mën naa bañ a crédible ndax wax na fi ay yoon yoon loo xamante ni méngoowul ak ni muy doxee. Ah, est-ce que tey euh, crise de confiance boobu. mooy euh, bi fe est-ce que ni munta a lor askan bi. crise de confiance bi day feeñ askan parce que confiance dafa war a am. entre kii gouverne ak administré bi confiance dafa war a am bu confiance amul même justice bu confiance amul rek dara du am mm. te manque de confiance dafay am ba pare ñu leen di servir ay ay récits burlesques ay contradiction ay volte-face ay mensonges. lu waral manque lu waral euh, euh, manque de confiance. manque de confiance bi mooy euh, loolu ci jëfi nag politique bi la parce que dañ ko politiser. dafay yàgg waaw ah, dafay yàgg te it benn njaal benn nga wax ñu leen dëgg parce que ñu tëj tëj nit ñi naan leen ay ceeb ak yooyu ginnaaw ba ceeb ba ñu xool nañ ko doxale mm. boo xamee daanaka kenn amul du ceebu dara. même bii rapport ba léegi ñu jëlaataat ko ci seen biir xam nga kooku moom amatoo loo wax nit ki. amatoo loo wax nit ñaareel bi même bi ñu fi defee confinement ñoom seen bopp ñoo doon yore ay kii. ay ay auto laisser passer euh, di di nekk ci autoroute bi tax seen i xarit ñoom yuusu nekk fii kii nit ñi. Mhm. yuusu Ndour ay affaire yooyu sauf nit ñi. boo xoolee maanaam affaire yi marché yi gis nga merum nit ña nañ defoon ñañ mere woon foofa lañ jaar. toj nañ fee toj nañ fee toj nañ fee yooyu yëpp parce que dafa indi loo xam ne président de la république benn animosité. waaw président am ñii ñoo war a gundaandaat ñii ñoo la mujj yëf yi soof nga xam ne bu continué woon ab révolté ko fiy dindi. Mhm. ab révolté moo ko fiy dindi waaw moo ko fiy dindi. parce que yooyu nag moo moo yàq mbir yi. d'accord mhm. mais mais mais sëñ Fallou euh, xam nga tey dafa am. loo xam ne ba pare boolewuñ ci nag kilifa diine yi. te kilifa diine yi. Euh, dañu ma bëgg lu jàngal nit ñi leen ku nekk na koy wooye dañ téeméeri yat mooy sàmm téeméeri mbooloo ku nekku yatam kilifa diine doo toog naan na kilifa diine yi wax na kilifa diine da ngay déplacé Macron dafa dem déplacé mën naa laa indil fu dafa dem déplacé wax ak bu dee Amérique yi dañuy déplacé gi donc koy respecté yow boo boo fa déggee Sonko rek bu subaa nga dem fa mais yow dem fa boo fa demee toog ne ko sëñ bi yëf yi kat man dama ci yàlla ci te lii nag mbir la moo xam ne amrud minal xaw fi am ni la waaw du lu dund la service service social la maanaam euh, ni ñu koy waxee euh, péril existentiel la comme que nii la demee nag sëriñ bi damaa bëgg na nga dimbali ma ci ndaxi nag unis san unis sansarokum fi diin fa aleykum nasru sëñ bi damaa bëgg nag nga dimbali ma waxal nag taalibe yi ñu ñàkku sarax ma ko ndax mënatumaa dem te yow rek yaa ma mën a xettali mais bu ñu tollee ci nag euh, kii survie question de survie loolu jar na ko question de survie la gis nga Macron ñoom affaire survie la ñu wax ndax nee nañ bu survie ñëwee liberté dootu am. waaw mais xam nga tey ñooñu ñi français yooyu ngay wax noonu dañoo am benn esprit de dépassement mais ñii ñi nga xamante ni mooy suñu républicain yi dañuy jàpp ne ñoom ba léegi ñoom gëmuñu ne pouvoir spirituel bi mooy. pour mais gëm nañ ko parce que moom faña empiriquement wan na leen dooleem léegi ñu nga nee lank léegi nag bu ko defee sëñ ba naa di bu boobaa day xam ne nag dañ koo sàkku ndimbal te it mu wane la man daal di joxe daayira yi wax leen ne leen nangam xool amee France maanaam léegi campus yi fa la ñuy yóbbu ñàkk yi ñun dañuy fàttaliku bi ngay gone xam ngay tradition dafa am solo ci ci mbir fàttaliku ñun bi ñuy ñàkk yi Tuubaa yow fàttaliku nga ne ñàkk yi dañ daa ñëw péncum sëñ Basiiru fa lañ daa ñàkkoo péncum Daaru Xudoos bu subaa bu subaa gaar bu mag noonu ngay def da ngay dem ci kër sëriñ sa ñàkk fa ñàkk yi doo ko yóbbu sax dispensaire da nga koy organiser kër sëñ Muntaxa pencum Daaru Xuddoos pencum nangam wax ak ñoom c'est bu ko boo demee pencum Daaru Xuddoos ñu boole la ak chef de quartier sëñ ba boole la ak chef de quartier Daaru Xuddoos ya fekk sàkku nga leen ndimbal bu bu sëñ bi waxee nag fii ku ci ne daan sama sëriñ wax na d' accord jërëjëf fàllu euh, Fallou Dieng euh, yow yaa jiite kuréel gi ëmb euh, cercle des intellectuels soufi mais sëñ fàllu dafa am loo xamante il ñu revenir naat si tuuti. Mhm. Sénégal dafa am loo xamante ne ñun dañ koy faral di kafe maanaam mooy mooy kàddu mooy crédibilité mooy confiance. Mhm. confiance bu dañee. lépp lépp dañ na waaw réew yi tàkk yépp nit ñi dañuy dem ba dootuñu amati confiance ci justice. Mhm. te réew mënut a réew tey bu ñu xëyoon benn fan rek ñu ne justice amul tey tey tey rek réew mi yëpp day jaxasoo ndax boo mën naa laa dóor dooñu gis ko ku ñu àtte mën naa jël yëfu jàmbur du ñu gis ku ñu àtte lépp dafa tënku ci justice léegi nag bu dee tey par exemple tey euh, ñu bari gëmuñu coronavirus bi beneen bi tey mille milliards yi ñu fi doon wax rapport yi nga xam ne fonds force covid 19 génn na rapport yi général François Ndiaye moom gis na ne ay ndëngate am na ci ni ñu joxe xaalis boobu ni ñu ko jëfandikoo. Mhm. beneen bi tamit gis nañ ne président Macky Sall moom def na fi ab tournée économique ba ñenn ñi di ko tuumaal ne. Mhm. dafa def crime contre le peuple. Mhm, léegi yooyu yëpp soo ko dajaloo. soo ko dajalee. Euh, lan mooy nekk njeexital yi euh, ci ci ci ci sénégalais yi. xam nga yàlla sakina sakina ñëw na ci alxuraan lu bari président dafa war a am sérénité day dal. dal nag wax dëgg yàlla euh, man bëgguma dugg ci politique mais président Sall ñu bari dañ koy séeréel ab yar mais sérénité amu ko dafa am tuuti impulsiv impulsivité. mooy il est très maanaam dafa am benn fugg maanaam benn euh, impulsivité impitoyable boo xam ne day tëb def kee def na nangam rek day fëkk moom it def ñaareel bi it ku mën a menacer la. te loolu ñaar yooyu euh, du ànd ak sérénité dafa war a dal. dal gi mooy Sénégal it am na lu dal justice bi mooy justice bi moom ñàkk na classe justice su Sénégal dafa ñàkk classe te damay dégg terme bu Emmanuel Macron di wax bu am solo la nee na justice n'est pas un pouvoir comme li naan pouvoir judiciaire nee na justice c'est une autorité parce que justice puissance publique lay utiliser day wax day wax ndax yoon may na tey justice bu bëggee woo colonel faaw au commandant autorisé ko kon justice du pouvoir autorité la day saisir autorité kii ba léegi nag justice c'est une autorité autorité la léegi justice nag bu ñàkkee classe dafa ñàkk classe ci Sénégal à force de laxisme laxisme ak maanaam tàppale yi dox ci biir Sénégal yi di ko teg bët ñàkk classe moo dafa am benn rapport infa maanaam rapport infantile avec le pouvoir rapport infantile mu mel ne gon goneeg pouvoir gi boo xam ne danaan ko jaaral fii jaaral fële léegi nag fu foo il faut nag ñu œuvrer pour indi fi l'avènement d'une justice boo xam ne nag justice crédible la justice intelligente intelligente et intelligible vivante et visionnaire qui se départit qui se départit de son rapport infantile avec le pouvoir. fekk loolu amul justice bi ñàkk na classe trop ci affaire Sonko yi fi kenn gëmatul justice loo wax ñu ne lu Macky Sall lu bëgg mooy am te am na lu fi am léegi dañoo taxawu justice ba mu def ba mu reculer léegi loolu moo xew taxawu justice ba justice reculer léegi kon ban justice lañ am. d'accord léegi euh, Serigne Fall justice dafa am ñàkk solo na xam ak xadaa àddulu du jaaxaan yàlla sax euh, àddulu d'accord mais euh, Serigne Fall man tim dafa loo xam ne tamit daf ma jaaxal ci surtout ci ñiy woowee seen bopp ay taalibe de manière générale mhm. ndax senegal réew la moo xam ne ay kilifa diine daf ci nekk mooy ñi jiite réew mi sax mhm. kenn ku nekk am na kër goo bokk mhm. mais dañu gis ne Euh, lenn li tamit est-ce que nit ñi gëm gi ñu doon gëm sëriñ ba léegi euh, est-ce que ma ngi fi laaj la li tax mu wax loolu mooy dañu gis ne coronavirus bi mu commencé sëñ Mountakha gëm ne corona am na ci li ma jàpp moo tax mu génne 200 million def ci. gëm ne corona am na moo tax muy takk masque. Mm-hmm. Euh, Serigne Mbaye Sy Mansour noonu léegi lan moo tax kon. sëñ Mbaye Sy Mansour muy takk masque sëñ Mountakha mi takk masque ñoom gox yu ñu dëkk surtout Touba ñu gis xalifa bi di takk masque askan wa fa nekk ñu bëri du ñu takk masque te rien gis nañ sëñ bi takk ko rek même bu ñu gëmul Macky Sall la gëmuñu Abdoulaye Diouf Sall la il suffit que sëñ bi takk na masque rek est-ce que taalibe yi waruñu woon a roy ci sëriñ bi ngir ngir ngir takk masque yooyu. xam nga loolu nag boo koy def da nga koy jàng sociologiquement parce que taalibe yi dañoo am benn problème ndax sëriñ si. Euh, bul fàtte ni sëñ Tuubaa bu ma wax li ma yar sama yarin la daa wax bu njëkk ca taalibe bu njëkk ga bu fàtte ni taalibe yi dañ daa faral di ñëw ne ci sëñ bi xëy si yoor yoor di naan si ataaya di dégg sëñ bi wax mm-hmm. mujj léegi taalibe yi léegi nag affaire bi doon affaire xaalis ak affaire yooyu ak affaire jaayante maanaak yooyu léegi maanaam taalibe yi léegi dëgg dëgg nan waroo taalibe gi ab yar dëgg nag dañ koo manqué waaw yaru sëñ bi moom euh, daa manqué ci taalibe yi waaw lu ma Euh, bi mu ñëwee daa mel ne loolu crédoom la mi ngi leen di yaraat mi ngi leen di yaraat ci xeqma euh, moo tax sëñ bi daa wax ulaayika al qawm la yashqa jalisuhumoo is yaksibuuna al muridina saadaati parce que taalibe yi dañ doon siyaare si boo demee gànnaar gis nga sérif yi bu ñu génnee foofu day fees del bu njëkk sëriñ si da nga daan ñëw fees del sëñ bi ñu baraada yi daw sëñ bi wax léegi nag taalibe yi léegi ña ngi ca rajo rajo yi jaayante maanaam bi dafa am ak it léegi nit ñàkk a yeewoo di ku la it nag it ak it nag it beneen affaire bi it mooy bul fàtte ne nag ku ci ne am nga sëp sëriñ xam nga it eh, di nga ndante bu ndaw bi ñàkku taalibe gi ci yenn sang si mooy wàcc ci kii il faut sang si ami taalibe dong ngay mën a ami taalibe bu sangu si amuti taalibe dong ngay dun am taalibe waaw sang si il faut ñu ami taalibe dong ngay sangu si il faut ñu amuk taalibe ci seen biir. mbooleem kull ku setu suñ tubaa bu suñ muntaxaa waxee nga nekk ca ba pare lay liggéey suñ suñ muntaxaa ak bëgg-bëggam nga koy wàccal nga nekk lantinoor di ko wàccal ba pare di doxe comportement ndax yàlla gis nga euh, exemplarité mooy tax nit gëm sëb sëriñ jërut mu lay yaatal ak may ne waaye soo xamee ni dii nga too ko ci dara da ko wet te lu mu wax da nga koy def waaye soo xamee ne doo ñëwee foofu écran plat yeeg yëpp nangam nangam yeeg wax yeeg yooyu booy temps yi nekk di circuler nangam nangam it da nga naan ci yàlla wax da nga fa dégg wax waaye doo ko gëm. loolu nag dafa bari ci su dëkk bu tedd la. léegi lan moo tax Touba ñu bëri ci askan bi gëmuñu coronavirus gëmuñu vaccin yi ba waraloon euh, ñu jël vaccin yi indiwaat ko Dakar. loolu moom li tax gëmuñu ko mooy ñoom dañoo dès le départ dañoo gëm ne lii dañ ciy xeex yoon wi te it am na ay. am na raison. waaw am nañu léeg-léeg xam nga nit yi fa xelam toll rek lay imaginer te Macky Sall aussi war naa libéré wu ci ñiy indi benn fumisterie daa am discours boo xam ne foo ko dégg fumisterie la ndaxte Sénégal ni mu bindoo ku ne am na koo yaakaar soo toogee dégg ni eh, sëñ diw de am na wilaya ndax la mboxoon ci corona moom kenn gisu ko yàqal nga ñey ñen yàqal nga kooku foofu yàqal nga ko loo xamee ne yàqal nga ñeneen ña nga xam ne seeni xel matut man waxuma nu ñu mat ña xam ne seeni xel te gis nañ ne kii kat daa bëgg def yëf yi affaire boo ko bëggee def yëf yi murit ña nga xam ne tiijaan lañ gëm daal ne kii affaire murit la ko bëgg boo ko bëggee def it jël ndam la lépp jox ko sëriñu tiijaan it murit ya nga xamee ne ñoom foofa la seen xel tool daan ne aha waaw nan nit nan te mal ne bokkuñu ci ndax ñee lañ ko jox loolu dañ ciy teey waaw yooyu discours yooyu ay seen diw comportement ba dañ ciy teey dooroo koo wax ku jege président koo xam ne dañ lay tuumaal ne pré lu bari loo wax yaa ko waxal Macky Sall soo ko waxee dañ naan Macky Sall a ko wax léegi ba nga ko wax léegi ñu ne la waaye jëlal say say vaccin soxlawuñ say vaccin léegi sax ñun léegi da nga naan yaa ngi tollu période boo xamee ne dangaa soxla euh, arrêt ay rassemblement xaaral ñu ñu woote sax nag ay rassemblement ay saboté la nga gis sëñ Fall ah, ah. mais sëñ Fall tamit euh, mais sëñ Fall gouverneur dakaar gouverneur dakaar dafa tere mhm. ay rassemblement euh, keroog ñu gis ñu def CRD màggal Touba gi gouverneur Diourbel ñëw teew mhm. maanaam tere nañ rassemblement ci senegal gi yépp mhm. te Touba dañuy waaj a def màggal gi te Touba bokk ci biir senegal euh, tënk ci luwaay réew mi léegi lan moo tax loolu sëñ Modou sëñ Fallou. waaw xam nga li ko def mooy loolu mooy président day nax boppam parce que gouverneur ministre de l' intérieur ko yëlif ministre de l' intérieur président président ñooñu gouverneur mooy léeyu présidence ministre de l' intérieur mooy le viseur du président ñooy ay bëtam kon moom président mooy nax bopp li tax mooy nax boppam xam na ne ñee dañuy màggal ba pare muy wax lii kon xanaa da ko muy nax da koy wax kii sa kii sa ton kan lay nax kii sa ton kan lay nax léegi lii problème bi mooy. léegi daal problème bi président boo ko nekkee ñu fal la muy lu neex doo da ngay woyof yow da ngay fexe rek ba am li nga bëgg li nga bëgg mooy fexeel ba naxanteeg ñee dégg nga wax bu fekkee yow mënoo am contrainte te contrainte mënu mënta nekk man maa la ko wax amul contrainte bu leen mën a euh, faire fléchir dégg nga waa Touba yooyu léegi nag comme que amoo doole jooju naxaan léegi ñoom ñoo yaag yaag ñoom ay responsable lañ appel en appel à la responsabilité yéen bokk réew mi te ñoom it daa am nag ay atte lu leen yàlla wax ne moo leen war nag te la leen war dañ koy appliquer mooy li nga leen demal naanteeg ñoom ne leen sëñ bi lii laaj na yéen a ma ci mën a dimbali dimbali leen ma ngir yàlla ñu ñàkk nii ñi. mais est-ce ñu ñàkk nit ñi. parce que xoolal. mais est na oyof googu léegi léegi scientifiquement données scientifique ko régler léegi li koy régler mooy nit ñi ñàkku tey takk masque day tey def euh, tey observer mesure barrière léegi ñu observer mesure barrière ba pare nga ñëw nag ñoom waaye Macky sàll na dem waxi jeeg mun Muntaxa du toog foofu naan ay ñoo ngi woo kilifa diine yeeg yooyu na dem ba ci mun Muntaxa ne ko sëriñ bi sonn naa réew mi Sénégal jaral nag ko. mais est-ce que am na oyof gi. lu tax du ko am Macky Sall mooy kan ba du am woyof bi noonoon benn waay boo xam ne benn waay la mu nekk président de la république euh, sama place man mu nekk président lan laa jàng naata ñaata junniy guddi laa sacrifié dafa maa dàq jàng ñaata junniy guddi laa sacrifié lan laa gëstu lan laa sonn moom yàlla may ko privilège boobu man awma privilège boobu loolu Sénégal du ko ko jaral xanaa abnégation président de la république sax da ngaa nekk serviteur de la république serviteur de l' état la moom buy wootu. yow est ce que bëgg gis nga man damaa bëgg affaire bi man li ma ci ñor rek mooy na affaire bi sotti. affaire bi mooy nañ dem seeti kilifa diine yi sarxu leen. kilifa diine yi wax ni ñuy ñàkk mais mais buy dem ci sarxu kilifa diine le conseil <laughs> le. dafa tële moom Ablaye Moussa eh, ah, waaw te tële nañ kay daan nañ tële nañ ah, kay dootu lu ñuy gis loolu kay ñëpp ko gis. d' accord léegi su dee Macky Sall dafa lajji ci ni ñu war a gérer oh, coronavirus bi léegi euh, moo Ablaye Diouf Sarr lajji nañ léegi yow fi mu nii nii nii. jàpp nga ne solution bi mooy dem saraxu kilifa diine yi ngir ñu wax ak askan wi. ñu ñàkku force askan yi ñu ñàkku bu nit ñi ñàkkoo bu ñu amee primo votant bu ñu amee tey par exemple neuf mille euh, neuf millions nangam bu ñu fexee daal ba vaccin yëpp ñi ñàkk bu baax. ba pare nag observer dëgg strictement mesure barrière yi. Mhm. épidémie bi dana dana reculer. d'accord jërëjëf euh, Serigne Fallou Dieng mbokk yi moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi léegi euh, réew mi ni muy doxee ni Serigne Fallou ñu bari dañuy wax ne situation réew mi. mais li ma bëggoon a dolli mooy damaa waxoon ne pour régler Covid bi il faut ñu def ko une idée du Sénégal. c'est-à-dire une idée du Sénégal mooy. Euh, def ko affaire boo xam ne day revêt un caractère social maanaam bu ko defee ñu xam ne ñàkk bi xam nga ñun foo ñu dégg ñu naan teraanga teraanga bu ko defee nag nit kii nag ñu gëmloo ko nit kii lànk ne du ñàkk ñu gëmloo ko nag ne Sénégal dëkk la boo xamee ne ay néegi ñax la doo bara doo yor sa ataaya am nga sa liberté waaye nag doo tàngal sa ataaya bàyyi fen ñeent wi lakk néegu jàmbur yow ki nga xamee ni nit ki nga da ngay xam ne nag affaire bi daa revêt benn caractère social ñàkku gi ngay nangoo ñàkku acte de solidarité la ci sa mbokkum mi ngay ñàkku maanaam it euh, kii la euh, acte de solidarité mais itam euh, kii la fraternité la acte de fraternité la te loolu mooy marqueur social de la teraanga bi ñuy wax réewum teraanga nga ñàkk nga xam ne da ngaa keneen nga gëm ne it boo ñàkkuwut yaa ngi def sa yaram comme mu mel ne da nga koo def benn agent mortel agent potentiellement mortel comme ab grenade boo xam ne mën naa exploser ndax mën ngaa fexe ba à tout moment. Mm-hmm. nga wàll ko keneen. kon nag te loolu du liberté. d' mais si Fall tamit euh, xam nga tamit tey par exemple tey euh, si corona bi noonu ngay wax noonu rek. Euh, xam nga tey par exemple tey buñ état bi. ndax man li may faral di wax mooy man dama juddu dégg ñu naan waxi politicien jëlul dóor sa doom dama yàgg dégg loolu. léegi coronavirus bi ce que tey par tey bu ñu ñëwoon fu mel ni Touba dem fu mel ni Ziguinchor fenn fu nekk boo fa demee am na ñoom am nañu culture am na ñoo xam ne ñoo mën a wax ak ñoom. par exemple tey ñooñu bu ñu demoon tey ba gëstu leen comme ku mel ne yow tey ministre bi boole la si. am na ay conférence ay man man sëñ Mountakha laa bëgg mu wax ak man. waaw waaw ndax sëñ Mountakha foo xam ne maanaam mm, daa mat ba xel ndax li tax daa mata ba xel mooy yow ci yoon wi nga bokk kilifa nga nga fa bokk maanaam sa turu tedd bi rek wane na ko. maanaam da ngay xool ni daa am fu ko murit yi teg ndax dañ ko yàgg ruus dafa yàgg stabilité dafa yàgg stabiliser dafa yàgg euh, préserver l'autorité morale murit dafa cee yàgg góor góor te it murit yi gëm maanaam temps yi yoon wi daf ko bëgg a rayonné indiwaat fi xam-xam ak loolu sëñ Muntaxa su teeg du moo ne woon ab la am Macky Sall euh, sëñ Touba laa lay booleel su Macky Sall jooytoo ca kanamam situation bii mu wax nit ñi ñu ñàkku te loolu Macky Sall ñàkku rek ko ci mën a génne lu mu wax si faux man maa la wax ne mënu cee génne ci leen lu dul ñàkk léegi euh, si 30 secondes relation Touba ak état suñ Fallou la mooy sa xalaat waaw relation bi moom euh, li ci sama xalaat mooy comme que man ab taalibe la xam nga taalibe la donc sama parole euh, amul valeur mais sax gis-gis waaw waaye nag danaa analise en tant que analyse maanaam nag observateur averti danaa wax ñaar su fekkee Macky nee na affaire yi ñëw na maanaam corona variant bi dafa yàq ñu ne nañ arrêté rassemblement yépp boo xoolee temps yi Touba ni muy wootee rassemblement mosu koo woote ndax buñ maanaam dégg nga ñu ne sax fu ne bu fa diggante jumaa jaak fii bu fa bu fa battu tak ñëpp fees kon ñi ngi woote rassemblement kon donc lu man di xew donte fee sëñ bi moom xaqiqatu baatin moo ko tax a maanaam incompréhension am na bu nit mën a analyser entre Touba ak pouvoir bi te loolu lépp Macky Sall la ndax li tax mooy Macky Sall mooy même bu dee politique addition la da ngay dolli même bu dee loolu boo ko ignoré xamoo dara te boo ko ignoré bëggoo la paix civile à moins que xëy na xëy na ma ngay wax ak ñoom mënta ñàkk am na ay canaux discrets yu ñuy doxe mais en tout cas. urgence la mu dem waxee ak waa Touba. même su dul si corona bi. waaw waaw bien ñàkk corona corona luy xew di njàmbat ñàkku la lii dafa jot ndax sëñ bi. boo toog même non sëñ Fall. dama lay leeral même bu dul corona bi nga tey suñ sëñ bi ca biir itam di defal Macky bi daa jaboote ñëpp moo jaboote opposition moo jaboote ñëpp su Macky Sall toogee fii ne bëgg naa dara sëñ bi wax nit ñi ah dañ naan sëñ baa ngay politique léegi. waaye corona bi moom day loo xamee ne sunu boroom dane mbir la moo xam ne mbir muy faagaagal la comme que jaay peste laa jaayee nag su sëñ ñëwee su ñëwee sàkku ci sëñ bi ndimbal sëñ bi dana ko ci dimbali. d'accord léegi sëñ Fallou fi may waxee ak yow ci dafa laal tuuti politique. Mm-hmm. dañ doon gis ne président yi fi doon nekk yépp dañuy neexoo ak Touba rawatina ci seen wàllum élection. Mm-hmm. mais dañu ginte ne jafe-jafe boobu président Macky daf ko am. yow lan nga jàpp ne moo waral loolu. waaw président euh, ay erreur erreur erreur la parce que président de la République Macky te li ci yéeme mooy euh, gis nga booy jiite réew. maanaam da ngay sa bopp da ngay da ngay da ngay sa bopp da koy rey daa am terme yu baax yu gaa yi wax tasawuf dégg naa tasawuf yi di ko faral di wax dégg naa franc-maçonnerie di ko bëri farax tasawuf yi dañuy faral di wax refoulement de soi dangay dàq sa bopp dangay mel ni amoo Sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan ne ka ardin yurma fawqaha kullu xabih wala turi min batniha illa maliha maanaam walxaasiyul suufi aalimun amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin fa saara saafiyan min al akdaari dañ lay purifier de toute salissure toute salissure mun xat musawiyan fa saara saafiyan min al akdaari mun xat mun xat fa saara saafiyan min al boo nekkee président de la république yi da ngay def reniement de soi yow kii la bañoon ak kala bañoon ak yooyu yëpp doo ko xool Macky doo fayu gis nga fayu vengeance fayu fayu mais li ñu naan euh, gis nga yi baaxul haine rancune rancœur répulsion yaa ngi may dégg. Mhm. ak aversion. yooyu ñooy yooyu boo ko defee rek. Euh, day fayu maanaam Macky problème bi mu njëkk am bëgguma ci dellu ndax lu wees la mooy nangu oto ya nangu oto ya xam nga problème loolu acte de guerre la. Mhm. ay kilifa diine ñu jox leen oto te ñu war koo am nga nangu ko confisquer seen i passeport diplomatique yoo xam ne waroon nañ koo am yu jeexul sax déjà nga nangu ko acte acte d'avancement yooyu yooyu jàll na ça appartient au passé waaye li gën a am solo fi mu ne mooy yooyu taalibe yi di ko gis. mu naqari leen lool de très fo euh, euh, nu koy waxee euh, forte incidence morale. mu metti leen. yooyu ak it léeg-léeg nangam nangam nangam nangam yooyu dafa dox diggante Touba ak kii léegi nag toujours location fait larron léegi nag occasion ñëw na defal lii te lii Sénégal yi dañ koo soxla ndax buñ bàyyee nii. Eh, ñu naan la ay confiné boo confiné dara du am guerre civile rek lay mujj te da nga euh, prématuré benn waay warutoon a yéeg. nga d'accord léegi euh, Serigne Fallou Dieng ba tey euh, situation réew mi fi mu toll nii. Mhm. waxuma sax situation économique wala mais situation dañuy mel ni ñenn ñi dañu gis ne frustration dafa bëri ci réew mi ñu bëri seen xol yi dafa tàng am amaana ñàkk gi la amaana ni ñu yoree réew mi la. Euh, yow lan moo ci sa mel ni animosité aussi dafa am entre pouvoir opposition bi lan moo ci sa xalaat. man nag dama leen di ñoom ñëpp la leen laa leen di kii euh, dos à dos xam nga pour man pouvoir bi lu bari lu mu war a def defu ko. mais opposition bi dafa dugg ci opposition de la terre brûlée dugg ci it opposition politique def politique politicienne ba yàqal lu bari. moo tax euh, pouvoir ndax opposition bi nii muy opposé. dëgg la ñi ngi indi nit ñi di leen yokku ñuy frustré man na indi guerre civile nangam nangam nangam waaye man gisuma nag euh, alternance euh, alternance crédible gisuma ko. Ah, c'est-à-dire ah, lu ko waaw gisuma ne ñoom indi nañ loo xamee ne bu indi indiwoon danañ indi apaiser réew mi développer économie réew mi xam nga nag ay thèse yoo xam ne niñ koy bind ay thèse man ngay abbi thèse rek naan lii nationalisme bu ma defee lii boo defee lii contrainte bu ñëwee doo ko man da ngay léegi euh, euh, euh, dégg léegi léegi léegi Ousmane Sonko mi taxaw ne day changer système bi nag. waaw anti système la mais anti système it anti système it kooku ay wax la rek. doyu la moom si réew néew ma doyu ma waaye ñoom yii muy wax thèse yi muy wax ni mu ko xamee laa ko xamee te man li ma gis mooy day restituer cour rek bëgguma ko saboter nag. ndax euh, man nekkuma fi pour défendre Macky Sall mais li ma gëm mooy bu ñu demoon ba àgg ca ba mu wan ba contrainte yépp taxaw mu wane ko mi ngi jëfi teesam xëy na yàlla xam mais nag euh, man am naa tuuti ay toujours nag am naa tuuti ay appréhension am naa tuuti ay taxafuzaat maanaam ay am naa tuuti ay appréhension. mais est-ce que euh, Serigne Fallou Dieng. jàpp nga ne. Sonko nii nga ko gisee yàgg koo dégg muy wax. Mm-hmm. xam ko waaw xam ko mm-hmm. xam réew ni muy doxee. Mm-hmm. xaw a jafe-jafe yu nekk ndax jàpp nga ne bu ñu ko joxoon réew mi mën naa di solution. c'est-à-dire xam nga réew mi daa am lu mu bindoo ndax réew mi day daa yàqu ba tàmbalee ba tey maanaam fayda faydaam seet yi nga xamee ne doxutoon ba pare fullaak faydaa ko war a dindi loola moom danaa ko ci yaakaar. dégg nga wax bi waaye discours bi muy wax it lu ci bari damaa defee ne rek discours aventuriste la bari na ci lu ma gëm. dégg nga ba malheureusement nag émission bi pour saboter ko yooyu tax ko woon a bëgguma fii ñëw di ko saboter di jàppale mel ne kuy jàppale Macky Sall ci moom waaye bis boo ma woo bu ma amee émission Sonko su ma neexee sax ñu toog ñu ñaar bu boobaa dinaa wax maanaam samay réserve ci Sonko. nan ma ko wax réserve daal yu eh, bari. te bu ñu toogoon ma man man bu toog mën naa ñeme naa ko débat. wax ci benn réserve. Euh, bari na nag wax dëgg yàlla xam nga it bëgguma fee ñëw nag saboté ko xam nga lu ko mooy léegi lépp luy lépp luy njaag Macky mooy njaag eh, lépp luy njaag Macky Sall mooy njaag parce que cuune Khady Sarr bi rek waaw ah, cuune la daal ah, bëgguma ko bëgguma ko saboté non non non bëgg ko yàlla bëgguma ko saboté taxumaa jóg daal mais bis bu ñu amee émission dinaa ko waxal te du doon benn mën naa doon sax ñaar fukk te yu wóor lay doon même ba ci néo nationalisme bi ñuy développé ak yooyu yëpp ak ak franc ak France ak CFA beeg yooyu yëpp bari na lu ma àndut ak moom. waaw léegi loolu euh, euh, maanaam nag souveraineté économique gëm naa ko parce que Union européenne lii France di def ci ñun moom la Union européenne di def ca ca France ah, rek. mais mais ni Macky doxalee si affaire Adji bi noonu sa xalaat. Euh, voilà Adji Sarr xam nga makki moom wax naa la ne moom daa mën a foofu foofu du ma ko tuumaal nag ndax du ma ne moom laak du moom Adji Sarr it wax dëgg yàlla jullit bu toll ne Ousmane ma ko tuumaal Adji Sarr mais cuune ku cuune Ousmane Sonko ku cuune ba lii di am. loola laa loola loola moom c'est un fait avéré lu mënti xew rek cuune na ak lu nit ñi wax naan ay fii nii kee génne su kee yooyu maanaam rek cuune am na ci. loola loola mënoon naa ñàkk te loola metti na ma ca moom. Hmm. moom cuune ba loolu am rek ak yeneen ak yéen yoo xam ne bëgguma euh, tey xam nga bëgguma euh, ba ma defee émission ba ma demee ñëpp dañ dama dem Touba ñëema da <laughs> <laughs> doon wax rek kon bëgguma mu loru dara ci samay wax waaye bis bu néewee nag bañ dem ba dépassé kii bi nag ba dugg ci politique ak yooyu nag bu boobaa man ñeme naa ko émission d'accord léegi euh, Serigne Fallou ñu wax ci fan yi am na ay loi yoo xam ne dafa jëm ci wàllum code pénal ak code procédure procédure pénale euh, aju si wàllum terrorisme opposition bi jàpp na ñoom ñoo ko tax a jóg yow lan moo ci sa xalaat voilà très bien yow da ngaa wax wax bi xam nga mooy Sénégal euh, sëñ dama bëgg nga déglu ma ci loi euh, antiterroriste yooyu bul fàtte ni àdduna si ñoo jóg ci xeex terrorisme terrorisme nag dafa bari form ars ku ci ne da ngaa corseté sa arsenal nu mu la neexe France waxuma attentat Charlie Hebdo yeeg hyper caché rek euh, euh, attentat Nice baag yooyu waaye dafa am problème mu banlieue Saint-Saint-Denis Saint-Saint-Denis dégg nga wax bi problème mu boobu nag dafa am bul fàtte ne France woote na woote na fa ne loi bu ñu naan loi sur la sécurité globale ak loi sur le séparatisme texte yoo xam ne day réconfo euh, les textes réconfortant euh, les principes de la république xam nga lu ko waral dafa am problème mu léegi dafa am benn rapport boo xam ne IFOP e moo ko génne woon dégg nga wax bi rapport boobu dafa wane ne 74 pour cent des jeunes musulmans affirment mettre l'islam avant la république 74 pour cent te leurs convictions religieuses passent avant les valeurs de la république yaa ngi may dégg. boo demee Saint-Saint-Denis foofu ay jàllaab la ñuy sol nit ñi nangam nangam trop banque fa am yaa ngi may dégg. Mhm. certificat de virginité yi ne courante la France ci algérien yeeg yooyu conversion yi dafa bari lool lool lool lool léegi Turquie it am nañ lu ñu naan euh, kii waaye nu ñu koy waxee ti maa koy fàtte euh, Baraka City ak yooyu ak giri doore xaw ma euh, lu lu giri. Euh, dégg nga yooyu dañoo foor léegi nag Gérald Darmanin bi mu ñëwee ki la nag def euh, nag loi sur le séparatisme loi sur le séparatisme boo gisee ni mu ko rëddee da ngay xam ne dañ koo taay sur mesure pour jullit yi. dégg nga ko anam anam bindal indi indi woon naa loi kii dégg nga ko dégg nga ko. léegi dégg nga. Ah, ñu fàttali euh, mbokk yi que ne yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM. Euh, seen émission euh, pencum réew mi euh, ñu si ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey nag ñu invité ci Serigne fàllu Dieng mi nga xamante ni moom mooy njiitul cercle des intellectuels soufis u Sénégal seen émission pencum réew mi samedi bu jot lay am sëñ Fallou ñoo ngi ci lu jëm ci wàllum loi yi nga xam ne. loi loi loi waaw mi ngi nii loi séparatisme muy texte réconfortant les principes de la République neutralité de neutralité neutralité du service public. publique lutte contre la haine en lu ne mën nañ ko ci dugal protection des fonctionnaires et des enseignants encadrement de l'inst de l'instruction en famille léegi boo jamantee sa doom sax di ko jàngal lax laxdar yoog yooyu dañuy ñëw xool ba xam laxdar yu bi nee nga ko jigéen sant muuru wala dara ñu ñu ñu yàqu contrôle renforcé contrôle renforcé des associations et leur finan xoolal une meilleure transparence des cultes et de financement léegi tam barkeelu yéeg yooyu yëpp dañ koy xeex dégg nga lutte contre les certificats de virginité polygamie dootu am France mariage forcé dootu fa am léegi ñoo tax loolu mooy seen loi séparatisme dégg nga yaa ngi may dégg léegi itam euh, euh, ku ci ne xam nga kon kooku l'islam a ko tax a jóg loi sécurité globale it léegi identification des policiers en opération parce que léegi dootoo sañ a euh, policier dégg nga article 24 de loi sur la sécurité globale maanaam dafa pénaliser la division la division malveillante euh, de l'image du policier en opération mais lu bon bon bon tubaab yi def nañ sax nag benn forme yóbbu ko conseil d'état sans Castex ko yóbbu conseil d'état mu retoqué loolu mu censuré article 24 Macky Sall wax dëgg yàlla bi muy def euh, loi loi loi loi loi am bi ci boppam da cee am nag li ma regretté vivement mooy le choix d'une procédure accélérée farax farax yi bi nga ko def. dégg nga wax bi compte tenu de l'ampleur des atteintes aux droits et violations des libertés fondamentales yi nga xamee euh, prévu par ce projet de loi dégg nga da cee am yoo xam ne ay attents la yooyu da ngay kay da ngay da ngay dem euh, yóbbu ko conseil constitutionnel mu retoqué ko maanaam mu censuré ko nga woo nit ñi woo ñoom Assane Dioma Ndiaye woo nit ñi ñu dolli ci bu ko defee nag ya nga xam ne ñooy sookul bi nag nga bàyyi muy. waaw waaye yow waxtaan wu te dafa war a am avis du du conseil d'état amu ci da nga koo def procédure d'urgence rek woo gaaye xeex fa Sonko xeex fa ah, pas waaye nag man ci form bi nag boo xoolee nag euh, ni terrorisme yi waaj a duggee Sénégal nga xam ne Mauritanie boo gisee mu rëcc moom mooy day état sécuritaire fort gis nga seen otage yi jàppoon sax jëlaat nañ ko surtout Ghazouani yi mi fi ne am na ay yuy xew ñun ñuy yëg am na lu ñuy yëg yoo xam ne bu fekkee amul loi yu diir euh, te il faut nag teel cee jóg léegi mm-hmm. dëkk bi taal ko yomb. mais yow daal jàpp nga ne ëpp. te ah. boo xoolee li fi amoon mars nag man ñaa doon ruumanaat gaay naan dañuy dem taal taali eh, raffinerie ba nekk fële ca eh, Dakar. ba jëm booru yaraax la xaw ma waaw dañ koy taal buñ ko taaloon ndakaar tàkk am na ñoo xam ne nee nañ woon boo demee caari ko caari usure am na ay kii yu nekk foofu installation yooyu nga xam ne daanaka bomb la. yooyu lañuy ñuy taal yooyu yëpp gaa ñu ngi ko doon wax loolu te acte de terrorisme caractérisé la waaye li nga xam ne nag moom la ñu waroon a dindi mooy la nga xam ne jaaduwul dañoo jël politique ba ko def acte de terrorisme loolu Macky Sall bu ko dindi woon yokku leen ñu tàcc waaye moom amul sérénité. du am sérénité. léegi euh, Serigne Fallou euh, suñu mujjantalu laaj tamit euh, gis nañ ne ci tension bi am ci au niveau de l' Afrique yenn réew yi fu si mel ni ay Haïti ay Tchad réew yoo xam ne daal ay coup d' état ma nga fay am ak ay assassinat ak ay ay fu si mel ni Mali tamit crise boobu noonu am ci au niveau de l' Afrique lan nga jàpp ne moo ko waral. xam ngay tappalee loolu tontu bi sax day duggaat ci li nga laajoon. parce que loi yooyu yu ñu fi indi am na ci yoo xam ne protéger France moo ko tax a jóg nee na. la rhétorique anti-française bi ñuy def ci ligne bi neexul France dégg nga wax bi ñoom xam naa Guy Marius façon yooyu mais rhétorique anti-française boobu taxaw maanaam xam nga itam usin euh, kii nu mu waxee euh, waa ji kii euh, après la xaw ma début début. Mm-hmm. discours yu mujj yi. ni mu dalee ci kaw France nangam nangam ñu jékki-jékki mu dee xam nga lu mu mën a di nga xam ne nag it lii yooyu daa am yu ñaaw yu France di def yoo xam ne il faut mu bakko su ko bawul jeune af jeunesse africain bi duñ def lu dul nag jóg ci France te buñ jógee ci France bul fàtte ay Russie ay Émirats arabes unis dañoo am ay société yoo xam ne déstabilisatrices euh, lañ ñi ngi ci Afrique sociétés yooyu sax dañuy assassiner di def lépp. Mmh. waaw mën nañ fi dugg ay assassiné fi ay chef d'état assassiné fi ay leneen te ñi ngi ci dëkk bi sax d'ailleurs yaa ngi may dégg ndax concurrence Russie moo gën a intelligence malgré algorithme yeeg métadonnées yi téléphone yi ñuy relevé ak yooyu ak yu ñu naan renseignement man pour man. France euh, Russie ñoo gën ci gën a fort maanaam man gëm naa ne euh, yii ñu ñuy thèse yi ñu ñuy waxal euh, suñu renseignement am na faille am am na inconsistance. en matière de sûreté loolu man gëm naa loolu. waaw mais euh, mais mais ah, ah, Afrique. Ah. Euh, te am na maanaam daal gëm naa loolu. te la tax ma gëm ko n'est pas ni Sogrini ni fortuit. d'accord mais euh, Afrique. jafe-jafe yi chef d'état yi faral di am. waaw waaw chef d'état yi faral di am mooy France da leen di defloo lu bon lu bon li mu leen di defloo mooy di leen di ex defloo loo xamee ne. day day irrité seen askan. léeg-léeg nag da ciy am ñoo xam ne France ci boppam moo leen di bëgg a comploter. bëgg leen faa jëlee bëgg a def benn opération chirurgicale ci ñoom ndax séq naa ak ñoom loo xam ne bu leen di war day bëgg affaire yi gaaw léegi nag mu def leen leen ay ay jëf yoo xamee ne dañuy def ay jëf yoo xam ne day. da leen di exposé à la colère ay actes irritants la ñuy def yoo xam ne day merloo nit ña nit ña mer suñ meree ba mer France moom ma ngay waxtaan ak beneen waay pour xëy xëy gis rek. débarrassé wu jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Fallou waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. waaw ah, jërëjëf si Abdou Khadir euh, maa ngi leen di ziare te di leen béggee. jërëjëf te lépp wax ji lu ciy njuumte rek ñu xam ne. <laughs> du woon sama yéene jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Fallou Mbacke mbokk yi moom moo jiite cercle des intellectuels soufis du Sénégal moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h. Mm-hmm. Mamadou Diaw Diallo ma ne woon wàllu machine bi jaa